ak parti unique fa lañ ko commencé xeex bi xeex bi dem ba nga xam ni lañ ca jot nekk na lu am maanaa may nit ñi ku nekk nga mën a wax sa xalaat ci réew mi waande boo egsee ci temps ab Abdou juuf gis nga ni temps boobu itam réew mi ku nekk mën nga ci wax lu la neex sa doo dem kaso nga egsi ci temps Ablaye Wade réew mi mën nga wax lu la neex sa doo dem kaso ci li nga wax Macky Sall moo commencé dugal kaso ci li nga wax. mais temps Ablaye Wade Barthélémy Diaz Malick Nawel Seck. ils ont fait la prison pour des délits d'offense au chef de l'État defena foofu sax lañ gën a commencé utiliser le terme là. waaw ouais, cest dire que man dama bëgg bu fekkee ni dañu analyser. Jean-Paul Diaz Abdourahim Agne. waaw ñu analyser ay tendances tendance yi nga xam ni moo mën a am parce que peut-être régime bu nekk mën nga fa trouver benn manquement mais bu ñu gisee tendance lourde. tendance toujours bi ci Macky Sall. c'est sous le régime de de de Macky Sall alors. Euh,